xoola jërëjëf sëñ man dama laa bëgg maanaam da ngay dundal sama xol ci sëriñ bi korog murid yi bëri na tey kontaan nañ doon ñu déglu li sëriñ Tuubaa am kenn mu ko moo tax bu ñuy gëstu ak di jàng ak di wëri nañ gëstu sëriñ Tuubaa doon taalibe sëriñ Tuubaa mooy liy jëriñi àdduna mooy liy jëriñi àllaaxira àdduna yëpp di la seetaan ngay wane ne man gisuma ku dul Serigne Touba loolu tamit ñi nga xam ne seen jaante des na buñ fa si woon danañ yëgee neneen wala ñuy bàyyi xel te xam nañ ne bàyyi woo xel kenn ku dul Serigne Touba te kennal nga ko foofa loolu murite Serigne Bamba yëpp nga ko defal loolu nag ñu ci ñu ñu la ci ñu la ciy gën a sant ndax jokkoon nag njëkk ngay taxaw ca barab booba loola itam ndam la ci murit yëpp waaye nag sëriñ tubaa moo nekk ci yow ndax boo kennalee suñ borom tabaaraka wa taala da ngay dem ba lépp di suñ borom ndax sëriñ bi buñ koy woowee yàlla nga day def lépp lu muy def yàlla rek a tax mu koy def waaye yow it lépp looy def it sëriñ tubaa xaadim rasul rek a tax nga di ko def nda fii wuti yoo fi dara lu bëgg sëriñ tubaa rek jaayante nañ koy waxtaane nañ ko ca daaru tanzil fii bi ma la woowee xat na lool li nga génn barki de mu ñëpp la soxla ñu woo la ne la dama bëgg nga teew ci laytul xadar gi te bi ma la ko waxee noo ko bëggee nga ma waxee wax ma fa nga daan dem nangami at kon tamit naa ngi ñaan waa topp bi ñu gën a góor góorgóorlu ci ak taalibe te xam ne àdduna bii lépp ci Serigne Touba la ko suñ borom jaarale bu fekkente ni bi bëgg ngaa texe nga gën Serigne Touba te nangul ko te di ko liggéeyal ku namut a texe doo bëgg Serigne Touba doo bëgg ko bëgg doo bëgg ko jëm ci moom te doo texe àdduna doo texe àllaaxira xol bu naqar rek ngay am ak ay jafe-jafe ak ay coono kon nañ bëgg sëñ bi te dellu ko nañ koy defee nag mooy jaayante ci sëriñ bi rek di xool bëgg-bëggu sëriñ Tuubaa de saako xam-xam di jàng xasida di julli waxtu juróom tegu ci yoonu siraatal mustaqiim buñ gàccal sëñ Tuubaa fenn ci lenn lu dul rek sëriñ bi rek tàmbalee ci sëriñ bi jam ci sëriñ bi lii nag mooy samay wax mooy sama kàddu mooy sama bëgg-bëgg di am mbégte nag tey bu baax ci alxuraanul karim yi nga xamante nit yi moo wàcc ci guddi gi juróom benn nit ñi nga xam ne wàcc nañu alxuraan di leen sant te di leen gërëm di gërëm tamit njaga mi nga xam ne moo jiite daare alquran xidmatu xadim fii ci topp bi taxawaayam rafet lool mu am pastéef lool may dem di ko fi bàyyi waaye ñiy jàng ñi bi mu leen di jàngal ñuy moo ko alquran ña toog ca daara ja di moo ko alquran yal na la suñ borom barkeel barkeel ñi nga àndal ak alquran ji yëpp yëg naa ko de tay fii mënoon nañ fee jël kàddu waaye sëñ Tuubaa moo may yëngal ba tax may man a wax ma jàpp sëriñ Saliou bi nekkoon jébbal ko lépp ndax xëccoo wuñ cër bëgguñ dara ja bëgguñ dara sëñ bi lañ bëgg te di ko dund rek nañ koy bëgg rek kol bi rek ne sëñ Tuubaa waaw loolu rek loolu rek doy na nañ koy teral fuñ gisee sëñ ba gànn nag ku bokk ci xidmatul xadim mbaa nga am lenn la bëgg deema ko teralal di mu ko yëgal te foo ko rombee doy ko nuyu ngir jëm bi sëñ Bàmba te di ko ñaanal tamit mu yàgg fi ndax bu fi yàggee dana yàgg liggéeyal sëñ bi ñu xam kan mooy sëriñ Tuubaa ak nan lañ ciy jariñoo ndax xam sëñ bi kat xam ni mu ciy jariñoo moo ko ëpp solo te day wane nan lañ ci jariñoo ak lim daj te soxla wutoon dara lu dul rek yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul boroomam kon nag maa ngi am mbégte bu baax ci bañ waxtu wi tamit gën la fee guddeel waaye murid yi jaayante leen seen poos yi bu leen nay génn leen jox ko sëñ Tuubaa dolli leen ku ko denc ku ko ku ko tër mu tër ku joxe yokk barke sëriñ Baara man ngeen ko def leen ko bu ngeen nayee bu ngeen nayee du dolli ko am naa yéen a ci yéen waaye sëñ bi nag li mu am da koo liggéey ku bëgg a jariñu ci sëñ bi da ngay liggéey bàyyi leen nay bàyyi leen nay te dee leen joxe na leen ko bambay jaral mu di leen yokk waaw bamba rek waaw de génne leen def leen ko ci sëñ bamba lii ñu ciy dajale sëñ Gana indiwu ko fi xamutoon ne danaa ko defal lii da ko def ngir yàlla jëm sëñ Tuubaa soxlawu ci dara soxlawu ci dara barki démb laa ko mujjee woo sama kër ñu toog fa waxtaan mu liggéey ci Serigne Touba ak alxuraan ba muy ñibbi joxuma ko dara kon kooku tamit mën naa séntuwaat ne bu ma fa demee itam ba topp bi tamit dara du ma fa yéene yàlla ak fi na jëm Serigne Touba maa bëgg ñu am ñu am tawféexi tubaab boo ko ci ñiy teral taalibeeb sëriñ Touba bii bu ëllëgee ak xiyaam ndax de kii nii ku ko taral sëriñ bi nga ko teralal ndax sëriñ bee ko boole ci ñi koy ñi muy ñi koy liggéeyal ndax boo ko seetaanee fuñ ko cuq mu dem fuñ ko laal mu dem loolu Serigne baa nekk ci biir am na loo xam ne du du xelum keesa doon jàmbaar loo xam ne Serigne bi moo ci feeñal boppam di wane boppam ndax mbër mu nekk dañ la fay samp moom mu ñëw doon mbërum Serigne Touba bu daanoo rek mu daj gi lañ koy daaneel doo daanu mukk da nga yëkkati rek jolli jëm ca kanam doo leen jëf doo leen jëf tey bëgg tey yaakaar Serigne Touba tàmbalee ci moom yam ci sëriñ bi sëñ Gana nag bis bii nii bëgg nañ di def ko ndax dëkk bii nii dëkk bii nii sëñ Gana dama cee am yéene lool. dañ koy am yéene lool sëñ Gana ci dëkk bi di togg jóg li tax tamit ñu am ci yéene ba tax coono yu bari ñu koy daj di ko ci jànkoonteel dañ koy tudd dëkk bi du tudd sëñ baara ñu ñuy tudd di tudd sëñ baara bu daanoo ma daanu bu yëkkati ko ma yëkkati ko moo tax coono bu nekk dana ma fi daj ma yëkkati ko ngir mu jóg ngir Cheikh Mouhamad Lamine Baara bëgg naa tund Kajoor dëkk bu nekk dana fi nekk waaye bëgguma ma ngeen ndamonte dëkk bii nii di demanteeg benn bii di des ginnaaw ndax faaw ndax baara rek baara nag barke rek kon sëñ Gana jërëjëfati tàllal loxo yi ñu tàllal loxo yi amiin amiin amiin